beneen combat ngi noonu diggante Yankoba Niodior ngembo ngemb lu xonq li won ñu droite ak Papa Gueye Mouma lu ñuul li ndeysaan Papa Gueye Mouma Yankoba Niodior Papa Gueye Mouma moo génne léegi c'est le mêlé par avertissement Papa Gueye Yankoba Niodior Papa Gueye Mouma à gauche ngembo ngemb lu ñuul li Yankoba Niodior à droite ngembo ngemb lu xonq li mu ngi noonu ñaari mbëri jàppante bàyyante jàppante bàyyante ñaari mbëri ñaari mbëri jàppante bàyyante Yankoba Niodior Papa Gueye Mouma Yankoba Niodior Papa Gueye Mouma bàyyante nañu léegi arbitre bi sifflé na àtte leen wax ak ñoom nee na di bëre bëre leen li ngeen di def du bëre ndeysaan Papa Gueye Mouma Papa Gueye Mouma yaa ngi ko ba

ndeysaan Bulldozer moom it mu ngi nii sunu càmmoñ eh jëli na ko Yankoba ba bañ na daal di riposte moom daw jëli ko eh fàqat na ko Yankoba fàqat na Papa waaye Papa Gueye dellu na Papa Gueye Yankoba ñoo joor bu dee fële Bulldozer moo fa nekk ngeen moo ngeen bul weex lii adversaire ba nag xamuma ko Papa Gueye jëliwaat na ko Yankoba bloqué ko mu nga ca kaw ñu ndenge ñante wala Yankoba ndenge Papa Gueye ndeysaan jàppante nañu ca kaw jàppante nañu ca kaw ca Yankoba Niodior ak Papa Gueye Mouma Yankoba ak Papa Gueye Yankoba Niodior Papa Gueye Papa Gueye Mouma moo ñëwoon ginnaaw ngembo ngemb lu ñuul li Yankoba Niodior moo ngembo ngemb lu xonq li ñoom ñaar ñu nga ca jàppante wala tegantey loxo bu dee ca arène nationale Tapha Tine ak Bombardier ñoo fa nekk arbitre baa ngi wax ñoom Papa Gueye nga koy jéem a kal lan lay def Papa Gueye ngay forcé da koy dóor tànk da koy dóor tànk lan lay def Papa Gueye lan lay def da koy jongle da koy jongle kal na ko jongle na ko kal na ko waaye yaa ngi ko ba génn ca ba set Yankoba bëggee naan na ca ba set Papa Gueye da koo bëgg a songulewaat Yankoba bi yoon boo ñàkkee wërsëg ba Papa Gueye zongule la ci suuf ngeen jëm arbitre sifflé na àtte leen lan am na ku défensive ak ku offensive wallaay Yankoba Niodior dafa dafa défensive. Abdou jox na ko avertissement fi mu nekk nii dafa tolloole ak dafa tolloole ak Papa muuma ku nekk am nga ñaar ku ci am ñetteel bi avertissement dañ lay disqualifié ñoom ñaar ku ne am nga ñaar Papa am na ñaari avertissement Yankoba am ñaar avertissement yi pour passivité la. ki nga xam ne dafa lànk ne du bëre wala ki défensive lànk ne du attaqué di subir ay action moo tax arbitre bi day atte lool mooy règlement wu lutte simple arbitre bi day atte daal lay jox avertissement yow mi défensive ku nangu te jëlay initiative dañ lay sanctionné jox la avertissement boo comptabiliser ñetti avertissement mooy dañ lay disqualifié jox sa adversaire victoire ñoom ñaar ñu nga ca Yankoba Niodior Papa Gueye Mouma ndeysaan loolu quart de finale la Yankoba Niodior Papa Gueye Mouma Souleymane Ndebane ko ñakeer joma lambu Ndofane ha jom no vira Souleymane Yankoba Niodior Papa Gueye Mouma Papa Gueye Mouma arbitre atte na leen Papa Gueye Mouma